mandat juróom-ñaari at la danaa ko yemale ci juróomi at ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax fi télévision Futur Média mbokk yi ànd ak ñun ci euh, seen émission Faram Facce euh, ñi ngi bég lool dellu si ci ak yéen ni ñu koy amalee bu àllarba jotee ci waxtu bi ñu ànd ak yéen ci seen émission euh, bi nga xam ne li ci gën a fës wàllu politique la ñu koy Faram Facce ci actualité am nag maanaam ci tolluwaayam ñu ànd ci ak ay acteur yu ñu jàpp ni seen xam-xam dinañ ko mën a waxtaane ñu recevoir leen euh, fii ci télévision Futur Média ci émission euh, Faram Facce mbokk yi tey ñu am mbégte nag di ci recevoir honorable euh, député Barthélémy Diaz nag maire ca Mermoz ñu ngi lay nuyu foofa ca Sacré-Cœur Barthélémy Papa Ngagne maa lay fay di la gërëm di la sant ci invitation bi. voilà ñu ànd ci ak allez-y allez-y. suma xarit di suma doomu ndey le ministre Mame Mbaye Niang di nuyu tamit auditeurs yi euh, ak euh, téléspectateurs yi plus ou moins de la télévision Futur Média. merci beaucoup ñu ànd ci ak le ministre Mame Mbaye ñu dénk ko wàllu tourisme mu bokk itam ci mouvance présidentielle bi euh, ñu ngi lay nuyu monsieur le ministre. maa ngi lay fay Papa di nuyu. sama xarit mon frère Barthélémy ni mu ko waxee dëkk la ay xarit lañ ay wóllëre lañ mhm. di nuyu tamit téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp émission bi ñu def ko ci jàmm lépp luñ ci mën a wax ñu wax ko. mu mhm. leer pour njëriñu askan bi ak njëriñu réew mi. d'accord jërëjëf Mame Mbaye jërëjëf Barthélémy émission bi nag dama bëgg tàmbali ko ak le ministre Mame Mbaye mhm. ci l'affaire Khalifa Sall. Euh, ëllëg incha allah suba jeudi euh, ci la ñu war a dem ci procès mhm. fi ñu jaar ba egg ci procès bi. dafa bëri luñ ci lu luñ ci gàkkal maanaam wax ni ca caisse d'avance ba la jóge mu jur coow ñu ne fonds politique la. ñu ne yàgg na fa ñu ne terewul mu dem kaso ñu dem mu dem kaso ñu isolé ko ci ni mu doxale par exemple ñu ne diw moo koy seet diw du ko seet am ñu jàpp ni loolu itam dañu jalgati ay liberté mm-hmm. ñu jóge ci loolu ñu dem ci euh, ci ay ay caution lu mujj li mm-hmm. lu mujj li muy caution bu ko mënoon may liberté euh, provisoire ñu bëri jàpp ni itam maanaam yelleefam la lu mu war a am la mm-hmm. alors yooyu yëpp ñu egg si ndax li ñu ciy tudd naan xeex la ci wàllu politique ngir faagagal benn adversaire politique wala jaay doole la wala politique la ndax foofu mu jaar yëpp ak li ñu ciy wax du jox dëgg ñi koy wax pour yow <coughs> jërëjëf Pape Ngagne euh, boo waxee ci affaire Khalifa mhm. baax na ñu wax la tamit fan la jóge mhm. ak li nga xam ni mën nañ ko cee wax ca teguñu ko ci xalaat ak njort mm-hmm. ak yaakaar waaye ñu teg ko ci li am mm-hmm. li am mooy jafe-jafe yi xalifa Sall nekk mm-hmm. mi ngi tukkee ci benn rapport inspection générale d'État IGE ci ay mairie yu nekk ci réew mi jàpp ma mairie yëpp mais mu am ci sax mairie Guédiawaye mairie Pikine mairie dakaar ak yeneen maire yi jàpp ma mais ville yi ci gën a mag ñu IGE dem saytu pour xool doxalin bi loolu lépp liñ ci jublu woon mooy xool acte trois bi ñu indi bu amee ay jafe-jafe njàngat ak saytu bi IGE di def dina permettre président de la république mu xool ndax war na am ay jubbanti IGE ba mu déposé rapport boobu mu am ay mairie du mairie Dakar rek ay mairie mhm. yoo xam ni IGE jàpp na ni que doxalin bi am na lu ci lëndëm. Mhm. IGE du la tuumaal. IGE bu defee rapport day wax ni que lii mën nañ ko éclaircir fii nii lii mën nañ ko mhm. éclaircir fii nii mhm. joxe yoon. biñ eggee ci mairie Dakar am na yeneen mairie yoo xam ni ay problème mu essence lañ amoon ak ay problème mu DRP ak ñii. yoon mooy wax ku ci nekk fañ lay yóbbu yoon wax ni que ñii dañ leen di traduire cour des comptes conseil discipline budgétaire ñooñu dem nañ ñi war a fay fay d'accord xalifa mhm. bosam mhm. mu dem instruction mhm. parce que ci biir rapport yi dañu wax ni que dafa am ay déclaration yoo xam ni méngoowul jënd naa ceeb ak dugub pour quatorze millions ak lu teg jënd naa euh, ceeb euh, ki ki livré nañ ko fañ ko livré delluwuñ ginnaaw. non non delluwuñ ginnaaw non. c'est-à-dire est-ce que delluwuñ ginnaaw. déedéet xam nga da nga ma laaj. waaw dama la laaj mais bu ñu toppee nii nga bëgg ma defal jeunesse bi nii est-ce que du ñu fi. fanaan déedéet pour wan la ni procès bi ñu jëm. waaw xam nga procès bi est-ce que amul ay ay ay ay ak xam ak yelleefam yoo xam ni vraiment. faagaagal nañ ko ci dem ci yoon kenn terewu ko. dinaa ci egg mais ñu teg ko ci yoon aussi. déedéet xam nga boo dee dem ci yoon papa ngañ dafa am lu la fa yóbbu. waaw ba mhm. ku xëy nit xëy xëyul xëy rek ñu jël ko yóbbu ci yoon mhm. man lii ma lay wax nii lu am la mhm. cest à waxaguma la sama xalaat dinaa la wax sama xalaat donc rapport IGE moo am instruction instruction bi décelé ci ñoom ay tuuma tuuma yi mën naa nekk comme mën naa bañ a nekk loolu bu ko nit ñi di fàtte xalifa ba léegi dañ koy tuumaal mu ngi organisé wu pour wane ni ko dañ koy tuumaal yoonu Sénégal du président Macky Sall moo ko fa indi yoonu Sénégal defe naa liñ koy tuumaal article bi ko bi euh, article bi bi mu amal jafe-jafe président Senghor defe naa moo ko ci defoon moo waxoon ci code pénal ni que buñ la dee tuumaal alalu askan bi juge bi amul sax commentaire bu juge bi sax waxu ko loi boobu député yi nekk assemblée nationale ñoo ko voté ñu ni bu amee accusation pour détournement d'argent public mandat de dépôt obligatoire la ak koo mën a doon donc loolu moo fa yóbbu xalifa. d'accord léegi nag. sama xalaat nga ma wax. waaw. xalifa euh, mandat de dépôt obligatoire la mais caution aussi. obligatoire la ci liberté provisoire. non déedéet xam nga bu boo amee bu ñu la tuumalee. Mhm. Euh, détournement de deniers publics. caution. yoon daf ni ci ñaari fànn rek nga ci mën a mhm. génne. contestation sérieuse contestation sérieuse. waaw nga weddi mu bu wér. defuñu ko mosoo dégg. xalifa ni defuma ko. d'accord musuma dégg Barthélemy ni defu ko moom rek laay tudd parce que moom laa jàkkaarloo. man du ma tudd ko fi nekkul. waaw euh, musoo dégg euh, contestation bu ñu mën wax contestation bu sérieuse. caution. Mhm. du ma expert ci droit man. waaye ci li xel nangu. Mhm. xalifa defe naa def na juróom-ñetti weer. Barthélemy def na juróom-ñetti weer ci kaso bi juróom mhm. weer ci kaso bi mhm. amoon na juróom-ñeenti weer pour déposer caution lu tax yoon jalgati ko du ma la wax bëggumaa wax lu ma xamul du may spécialiste droit mais dégg naa ñu naan ay biens immobiliers ak xaalis ak di commenter mhm. loolu defe naa juriste yi mën nañ ci commenter mais loolu mosoo ko gis euh, mosoo gis ci ci caution ah, ay biens immobiliers d'accord kon ci musuma caution man ci li ma xam boo dee joxe caution CDC ngay dem fii Sénégal léegi caution même sa caution téléphone sa caution bi ngay joxe. pour jënd am accès abonnement. Mhm. da ngay dem nga déposer ko caisse de dépôt. mën na nekk xaalis comme na nekk leneen man caution bi la. bi nga xam xaalis waaw wala nga joxe garantie garantie booy def prêt la booy àbb xaalis lañu lay wax garantie. Mhm. bugguma wax ci lu ma xamul. Mhm. ca du ma wax ci lu ma xamul. Mhm. wàllu caution bi ndax ay bien mën na ci nekk wala ay bien mënu ci nekk defe naa avocat mën na ci nekk sama xalaat man. Mhm. sama xalaat léegi laay wax. Mhm. damaa jàpp ni fii Sénégal. seetlul ñaari nit lañ fiy jàpp. nit ñi ñaari ñi amul ñu leen waxal ak ñi amul euh, alal ju ñu jëlee ñuy wax organiser une résistance ndeysaan ñooñu code pénal lañ leen di wax. mais koo fi dégg mu naan le code de procédure penal waxul ni defuma niñ ma jàppee xam nga y a une différence. du man. Mhm. ak waa man la ak niñ ma jàppee niñ ma jàppee laa d'accord loolu si différent loolu problème moral la mais loolu sama xalaat la mais mbiru xalifa du du amul xaar ma yàlla. Mhm. amul kenn man yéenewu ma ko. d'accord man li ma ci jaaxal mooy ku wax ci yéen rek ne yéenewu ma ko. no non non. wala te loolu raxul benn benn benn benn benn nga baal ma benn hypocrisie non non non c'est-à-dire man kii ma jàkkaar loolu xam na ma d'accord ok bi muy jegee ay jafe-jafe mhm. lu ma séq ak moom tax na sama war ma sax mayu ma woon ma wax ko mhm. parce que dama jàppoon ci que li mu nekkoon man mënoon naa ci nekk ca bu ma daloon tamit dinaa ko assumer d'accord mhm. man du ma wax lu ma gëmul c'est bon cest à yéenewu ma ko ko mhm. Mhm. mais yoon nag moo ñu tënk ñun ñëpp mhm. et bu ñu bëggee dëkk bi egg fi mu war a egg nañ ko teg ci yoon nañ teg ñëpp ci yoon d'accord na alors euh... le mini euh, le maire Barthélémy fi mu daanelee foofu foo am solo la aussi dëkk bi dañ ko war a teg ci yoon. cest à ak lu mën a xew xalifa seen partenaire la euh, wala seen seen collègue la lu mën a xew dëkk bi dañ ko war a teg ci yoon. ku jalgati yoon dañ la war a teg ci yoon. te li mu expliqué jëm ci caisse d'avance bi wax naa ko ni ko bu ñu delluwaat ginnaaw mais bëri ci yëm loo xam ne lu lëndëm la. loo xam ne moom sax daf ko war a arrangé moom xalifa pour ñu dem procès pour loolu mën a leer. mais Papa Ngagne. Mhm. je pense laaj naa ko sànq en privé ma ne ko que gis nga rapport bi mu ne ma gis naa rapport bi ma ko yow est-ce que xam nga rapport bi ñaata page la ma ma ko laaj encore est moom xam na rapport bi ñaata page la rapport inspection générale d'État sur la ville de Dakar. non du la wax ni que li. parce que rapport bi waxul ci waxi xalifa rek ma s'il vous laaj dama koy tontu rek man ak moom du am problème. waaw gis boo ñu dégloo man ak moom. je sais que du ngeen am laaj dama koy wax rek rapport bi. mënuma la wax ñaata page la mais li concerné ok li concerné dossier bi xalifa wax dëgg yàlla bu ma la waxee xooluma ko wax naa lu dul dëgg mais liiruma rapport bi yëpp parce que rapport bi yëpp waxul ci xalifa rek 54 pages la mhm. ci 54 pages yi mhm. rapport bi c'est un satisfecit pour xalifa Sall xaw ma nu ma koy waxee ci ci wolof dañ ko delloo njukkal maanaam dañ ko delloo njukkal mhm. ma wax la bu ci gën a neex ARMP agence de régulation des marché publics dañu daal di noté mairie yi yëpp biir Sénégal ci seen mbiru liggéey Khalifa Sall moo jël P te loolu lu may invanté mën ngeen ko vérifier ak ARMP parce que vous êtes l'État mhm. ci rapport bu ville de Dakar rapport boo gis dafa am recommandation ci bu ville de Dakar dañu ne yéen seen système d'alimentation des fonds politiques système bi ça date de 1996. fonds politique la ñu utilisé ci biir rapport. dama ne c'est-à-dire que non non non est-ce que fonds politique la ñu utilisé ci rapport damay en 96. waaw mais dama man aussi dama la ma laaj. waaw parce que baat solo quoi dañ caisse d'avance. ok mhm. mhm. Mhm. donc ma rek wax ma ñëw rek parce que j'ai la parole. waaw 96 dañ ko libellé. caisse d'avance. 96 ba tey y a aucune autorité y compris ku fay toogal état. bu ne déet da ngeen nar a changer bi parce que ci réglementation bu bees caisse d'avance narul dépasser 3 millions. Mm-hmm. ci recommandation yi dañu ne seen mbiru liggéey. amul lenn luñ ciy wax wante seen mécanisme d'alimentation ce son des fonds politiques mm-hmm. ngeen wooy ko caisse d'avance dafa méngoowul avec la réglementation en vigueur mooy la dernière version du code des marchés mooy 2015 ci recommandation yi waa ARMP waa DCMP waa IG ñëpp a may dégg amul fenn fu ñu bind il faut des arrestations des poursuites et un emprisonnement ak procès amul fenn fu ñu ko bind te lu tax may wax loolu lu tax mu am solo parce que rapport dañ koy jébbal le président de la république du noonu mais tey rapport IGE rapport IGE mm-hmm. mais rapport IGE Petrotim mm-hmm. président de la république dañ ko ko jëbal te recommandation yi fa bind ba tudd ci ay tur dafa leer dañu ne il faut des arrestations des mm. poursuites mm. des emprisonnements te sax rapport bi nee na président Macky Sall ku fi ku fi nekkoon président balaa ngay toog bépp signature bu mu signé ci contrat dañ koy annulé président Macky Sall estampillé ko à liir et à détruire mm-hmm. parce que fu ngeen xam ne ni inspection générale d'état ma ñëw rek ma ñëw rek fu nga xam ne ni inspection générale d'état nee na bii rapport fii dañu nar a ay nit poursuivre leen mhm. condamné leen defuñu ko annulé ay signature ñu ko ci benn rapport bu nga xam ne ñu ngi ñaax waa ville de Dakar nañu xoolaat mécanisme d'alimentation des fonds politiques en résumé nga bëgg wax lan foofu en résumé waaw nous ne sommes pas dans une reddition des comptes nous sommes dans un règlement de compte damay tey te te te lu may wax nii pour joxe ay firnde mais règlement de compte à quelle fin s'il vous plaît avec votre permission waaw xam nga euh, euh, caisse d'avance les gestionnaires de la caisse d'avance mm-hmm. c'est le percepteur et c'est le gestionnaire de la caisse d'avance sont les deux responsables mm-hmm. waaw maintenant man damay poser benn question percepteur bu fa nekkoon ak percepteur bu fa nekk tey nii lu tax kenn leen ci kaso bi est ce que monsieur le ministre. non ma ñëw rek ma ñëw avec votre permission. mais nag dinaa la wax non parce que s'il te plaît. voilà ma daaneel foofu parce que l' ancien percepteur. Mhm. comme l' actuel percepteur. ils n'ont rien à se reprocher. Mhm. parce que tout a été couvert mhm. par le l' agent qui représente l' État mooy le préfet te lépp. dafa daf fi nekkoon 96 ba tey rien n'a changé sous les cieux su ngeen noree tey Khalifa da ngeen tey Pape Diop jàppaay tamit Mamadou Diop Mamadou Diop wax na ñëpp dégg nee na Khalifa Sall doon doxale non ma ñëw rek non s'il vous plaît nu ko Khalifa Sall doon doxale a pas de prescription non s'il vous plaît pour Pape Diop y a pas de prescription ah oui même au-delà de 7 ans au-delà de 7 ans non si vous me permettez de développer pourquoi c'est un règlement de compte mm de compte pour la simple et bonne raison que ci rapport bi on n'a pas demandé des poursuites au président de la République parce qu'il y a aucune faute grave c'est ça la vérité mhm. te foofu lay daane avec votre permission état du Sénégal munul munul weer bu nekk pendant plus de dix ans di fay la même facture en numéraire ça n'existe nulle part te xam ko xam naa ko mhm. on gère tous les deux des deniers publics mhm. te je le répète vous êtes en train d'aller trop loin dans ce dossier te Diallo. d'accord d'accord merci. mais na la vraiment. ci ci loo xam ni dafay dafay non damay damay rectifier déjà ñaar yu mu wax ci yoo xam ni man ànduma ci ak moom parce que tamit bu ñu nax nit ñi fonds politique usage bi ñu ciy wax. moom député la woon assemblée nationale. Mhm. fonds secret yi ak fonds unité africaine yi muy wax moom ah, voté na budget ba taay. Mhm. fonds politique présidence la am. Mhm. nan la xel mën a nangoo mairie de Dakar am fonds politique mairie Pikine amul fonds politique mairie mairie mairie Guédiawaye amul fonds primature ñu ngi fay tudd ay fonds politique primature xaaral rek xaaral ma wax primature am na fonds politique ministère de l'intérieur am na ah, fonds politique xaaral ma wax xaaral ma wax la xaaral ma wax la <laughs> c'est-à-dire fonds politique loi moo ko réglementé ah, mais fii ñu la wax nii aussi ñu ngi ko fay tudd mais déglul xam nga ni mhm. ko fa tudd ak léegi léegi nii am na leen lu mu wax loo xam ne man wóor na ma ni bu fekkee am na ko suba na ku génne xam nga boo nee IGE def na rapport ci Petrotim après ñu liir ko. après mi ngi ñëw xaaral mi ngi ñëw incha allah président liir ko. Mhm. estampillé ci xaw ma à lire et à que. man gëmuma ay naxante gis nga tey jii nii lu ma la fi wax boo nee ma mambay ana kayit bi ma génn ma kii sama portable ni la kayit baa ngi nii bu may génn bàyyi ko ci donc du ma wax ci yaa yaakaar naa ak yaakaaruma fonds politique amul mairie Dakar. am na mairie Dakar fonds politique rek wax la. Mhm. caisse d'avance bi ngay wax yow yor nga mairie comme li nga wax man fi ma nekkee ministère de la jeunesse DAGE bi pour mu euh, def euh, activité de jeunesse yi ci quinzaine ci semaine national de la jeunesse caisse d'avance lay am bu cent millions woo conseil national woo acteur yi. nga ne caisse d'avance bu ñaata. bu cent million caisse d' avance da damay expliquer nit ñi lan mooy caisse d' avance. gis nga heure boo dépensé waa CNJS ni la dépensé nañ lii ASC bii lañ def kii lañ jox këyit yooyu ngay dajale ak facture yi ñëw déposé ko. mais yéen caisse d' bi ngeen di wax 30 million yi Barthélemy ni damay nii damay jël 30 million par weer. jënd naa dugub. ci xalifa la commencé. waaw xaaral rek xaaral dinaa ci egsi ci loolu. ci xalifa la commencé non dama dama lay dinaa egsi ci loolu. Ah. dinaa dinaa egsi ci loolu. Papa Ngagne yow ak Barthélemy léegi laay laaj. waaw wax sénégalais yi damay jël seen 30 million laaj ko rek moom waaw xaaral déedéet après. di nga tontu non di que xam nga lu jub ak lu jubadi. lu jub ak lu jubadi. ak loo neutre neutre neutre. Ah. xam nga lu jub ak mhm. lu jubadi. Mhm. est que xel nangu na. Mhm. nga ni 30 millions yi million millions cent yi dugub laa ko jënde 14 millions yeneen 700 yi ceeb laa ci jënd fii laay teg bu ceeb bi fa ngay yóbbu ceeb bi ni musu musuma jënd ceeb xel na nanguwul loolu xaaral rek waaye loolu moom dama la ci tontu loolu jub na loolu jub na wala jubul non loolu jubul xam nga loolu lu jubadi d'accord loolu moo nekk ci rapport bi ok rapport u IGE mm-hmm. bu ko président jotee mm-hmm. moom mooy xool mhm. yoo ko ko may ci coobare ndax mhm. daf koy transmettre mhm. ba mu ko transmettre du mairie dakaar rek et rapport IGE musuñu ci bind fonds politique caisse d'avance la ñu wax caisse d'avance la ñu wax nit ñi li ñu war a laaj seen bopp moom maire la xam naa ni gérer na budget xam na ni gere gérer budget parce que day voter budget xam na code des marchés ARMP bi muy wax xam na code de marchés li tax 30 millions yi jëluñu 30 millions yi yëpp comme que dañuy jël rek. ñu jënd ko ceeb. non may ma da nga ko da nga ko dinaa ko tontu. may ma ma eggale rek. lu tax jëluñu 30 millions yëpp ñu ni 30 millions yëpp ceeb la ñu jënd parce que dañ doon daw code des marchés bi. parce que temps yooyu limite bi 15 millions la buñ déclaré 15 millions dañuy def passation de marché dañuy def appel public dañuy def dañuy def appel euh, nan lañ ko tudd dañuy def euh, dañuy def. appel à concurrence dañuy def appel ko pour bañ a egg ci 15 millions yi mu nekk 14 millions lu tax ñu jënd ceeb jënduñu euh, jënduñu bic jënduñu feuille jënduñu kii parce que boo jëndee ceeb ak dugub doo fay TVA. Mhm. donc système bu huilé la xalifa musul miim. Mhm. nan leen waxante dëgg rek xalifa musul miim. xalifa mhm. tonton daf ah. ni c'est des pratiques que j'ai trouvées sur place pour egsi ci kii yam mais Mamadou Diop. Mamadou Diop kenn mënu ko topp. kañ la fi nekkoon maire. d'accord Pape Diop waaw mais loolu Pape Diop avant muy def déclaration bi man maa lay wax ni ko dafa wax ak ay avocats prescription am na ci Barthélémy du ma juriste de. mais balaa may ñëw d'accord merci ah beaucoup balaa may ñëw balaa may ñëw non bi muy wax dama ko déglu damay toog ah, ci question yi mu wax yëpp mi nga baal ma aussi nga donc sinon xayma ci xayma waaw ak ci tënk mhm. amul benn tuuma buñ ci teg d'accord merci beaucoup ki jënd ceeb bi mhm. mi ngi fi ki ñu wax ni moo ko ko jaay mi ngi fi ki ñu wax ni ko moo ko doon denc. mi ngi fi moom nee na percepteur bi joxe xaalis bi. dafa demul xaaral xaaral ma wax la xalifa miimul. percepteur bi demul kaso parce que bi deful dara. mais xalifa miimul d'accord merci dama ne non non. c'est que en matière de gestion de deniers publics. non dans le cas de figure bien précis. xalifa miimul Barthélémy est-ce que xalifa mës na miim. waaw xalifa musul miim. Mhm. xalifa musul wax du man. Mhm. xalifa. musul wax du man te li génn ci enquête bi man xaw ko man ak yéen ñoo yem ci presse bi mm-hmm. moom yenn saa ñu wax mu génn défendre gën a éclaircir position mais Khalifa musul c'est bon merci beaucoup man tontu naa ko vraiment laaj na benn laaj ñun ñaar muy 14900 yuy dem ci ceeb wala dugub kenn du ko gis kenn du ko dégg loolu amul fenn sa à dire loolu ak noo ko mën a defee am am na duy faux est-ce que jàppaloo nii li dugal xalifa kaso moo ko yóbbee boppam. Euh, Pape nee na la léegi nii qu'il a une caisse de 100 millions waaw. la caisse d'avance dans la réglementation actuelle elle peut pas dépasser 3 millions. en ankay lu leer laa lay wax dama euh, monsieur le ministre. bu on a tellement entendu parler de la caisse d'avance que dañ ne Sénégal ñu ngi seetaan euh, xam nga sénégalais ñu mm-hmm. mais grand tontu ma rek s'il vous plaît. non bu ngeen ko defee nii. dama ne dama ne dama ne je reviens à ce que j'ai dit. mécanisme bu nga xam ne ni dañ ko installé ah, depuis 1996 depuis 1996 hmm. état état hmm. décentralisation ci collectivité bu nekk hmm. ci niveau bu nekk état dafa am représentant waaw maintenant représentant de l'état ci euh, au niveau des villes lu tax il acceptait de valider les budgets non s'il vous plaît lu tax il acceptait de valider les budgets c'était que c'était une pratique qui était déjà validée par l'état ces fonds là même le 4 avril ces fonds sont utilisés par rapport au au, défilé du avril. xam nga du lépp la ñuy wax état dafa am nu muy doxee. état am nu muy doxee man du ma attaquer des gens sous leur gestion personnelle. parce que tey. aucune œuvre humaine n'est parfaite qui il est le ministre de, du tourisme tey il a été ministre de la jeunesse. nous avons suivi ici les débats sur le Prodac. pourtant débat sur le Prodac c'était des fermes agricoles ñu bëri gisuñu seen bopp. les fonds pour euh, pour l'emploi des jeunes ñoom def nañ fi une grande cérémonie. Euh, su ma jumlee sax c'était au Grand Théâtre mhm. ils avaient pris l'engagement de de financer six cents et quelques jeunes mhm. la suite on la connaît mais on n'attaque pas les gestions personnelles. non non non non ma ñëw non s'il vous plaît s'il vous plaît non non s'il vous plaît. non non non ma ñëw non non non ma ñëw parce que ah. Ah. Mhm. ñoom ñoo woote woon. non s'il vous plaît maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw dama ne ñoom ñoo woote woon gestion sobre et vertueuse. on en reparlera parce que moom laay wax chaque fois nee naa suba dina am dama ne il faut qu'on il faut qu'on se respecte. rapport bi. Hmm. le rapport. santul président Macky Sall mu def lépp lu mu def. te pourtant am na yeneen rapport yu nga xam ne c'est le même corps de contrôle d'État qui a mis ces rapports sur la table du président avec des indications et des recommandations yu nga xam ne dafa leer nañ te Macky Sall defu ko euh, au niveau de la ville de Dakar. Hmm. les fonds politiques de la ville de Dakar mosul nekk un secret pour personne et pour preuve le préfet de Dakar budget bu nekk da koy approuvé compte administratif bu nekk da koy approuvé mais ñëwaat ci lu ma wax dama ne le mécanisme te waa euh, inspection générale d'État wax nañ dëgg tout de même parce que lu ñu doon def 1996 ñu continuer di ko bëgg def vingt ans après ñu ne non bu leen ko bindee noonu bu leen ko doxalee noonu parce que méngoowul avec la réglementation en vigueur mais loolu Khalifa Sall il a reconnu effectivement que la. mais faux bi nag lan moo ko ci indi. non dama ne faux xam nga faux. xam nga faux xam nga ni am na ci. waaw ma ñëw rek lan moo ko ci indi. non ma ñëw rek euh, Pape Ngagne. Mhm. su amoon faux. ma ñëw rek non Pape faux ci facture yi aussi Pape je reviens Pape. ok man j'ai voté le budget du Sénégal pendant cinq ans. Mhm. tey présidence de la République. ci seen fonds politique am na benn rubrique bu ñuy woowee fonds de solidarité africaine. nañu Macky Sall wax ban solidarité africaine la mës a def fii en Afrique amul mais dans le mécanisme c'est libellé fonds de solidarité africaine non s'il vous plaît maa ngi ñëw dama ne dama ne les Sénégalais sont en train de mourir en Libye mhm. les fonds politiques sont utilisés pour euh, pour des soirées de gala et d'autres choses on n'aide pas les Sénégalais avec a fortiori mhm. les Africains mhm. c'est des mécanismes qui sont mis en place loolu dañ ko naroon nangu mais bëgg a galgal benn nit pour mbañ a bokk ci élection ba di dem à des seulement pour liquider une personne je vous le dis je vous le répète ce n'est pas bon ce n'est pas bon pour vous c'est pas bon pour le pays d'accord te nit ki da loolu mais monsieur le ministre dafa am lu mu wax lu am solo parce que bu mm-hmm. fekkente le préfet personnellement approuvé le budget à plusieurs euh, reprises mais mais mm-hmm. xaw a doy waar que c'est lui moom mooy représentant état mm-hmm. donc su fekkente ni approuvé na ko mais loolu rek waroon na mën a sauver Khalifa ci lii nga xam ne moom lañ ko teg normalement. est-ce que yaakaar loo ni aussi état bi am na ci responsabilité. ci wàll boobu sama sama sama sama sama xarit yi bi bëgg taf yëngal li préfet budget lay approuvé. caisse ak compte administratif la approuvé ak compte administratif compte administratif mooy le reflet d'un budget exécuté waaw xaaral rek moo dinaa dinaa egsi ci li ngay wax mo man dañuy gérer budget man mii damay gérer budget même si je suis pas administrateur gis nga budget préfet bi budget bi lay caisse d'avance du rubrique bu nekk à part caisse d'avance xam nga mooy lan ci sa biir budget lay nekk nga am liggéey bu jàmp munoo respecter procédure yi ñu ni nañ la créer caisse d'avance. te warul dépasser 3 millions. te warul dépasser 3 millions. pour seen mairie non pour yow pour yow. non non pour tout le monde pour la petite trésorerie. mais bul wax loolu. changer une serrure euh, changer une ampoule. c'est pour la petite trésorerie man hmm. bi ma mujjee jàpp. président sax xam na caisse d'avance fépp fépp budget da am caisse d'avance. du dépasser 3 millions gis millions. non bul man bi ma mujjee dégg vous plaît waaw ay militaire dem nañ mission ñëw caisse d'avance moo leen fay 10 milliards mooy cest diir dire yoo xam ni mi ngi ci sa budget wax nañ la xaalis bi wax nañ la fan nga koy jëlee nan nga koy jaaye ak ci lan nga ko mën a dugal loolu mooy budget liggéey bu jàmp inondation yi bu ñëwee ministre de l'intérieur wala ministère yi nga xam ni dañuy intervenir ci inondation yi ci forme caisse d'avance la ñuy liggéeyee munoo dem di saafara ji ñi ñi ñi ñi ñi ñi nekk ci mbënd naan da ngay def ay procédure sur six mois sept mois loolu xel nanguwu ko. Mhm. Sénégalais yi duñ ko nangu. Ah, gouverner c'est prévoir. moo tax moo tax et le code des marchés et prévoir c'est créer des créer les conditions pour que l'autorité ou le décideur puisse dépenser immédiatement et après justifier loolu mooy caisse d'avance. caisse d'avance boobu nag am mairie Dakar mais ñu ñëpp moom wax na ko léegi tuddul fonds politique caisse d'avance lu tudd. nee nañ ceeb lañ ci jënd ak dugub ki koy jaay nee na moom jaayul ki koy denc nee na dencul ki koy séddale nee na séddalewul mën nga am caisse d'avance daan ni dama am ay jafe-jafe ñu war a faju ñu war a ñu war a opérer ñu war a dem tabaski ak ñu am ñu soxla ndimbal maire yi dañ ko ci prévoir mairie Dakar chaque at am na lu toll ci budget bi bu ma juumalee bëgguma wax lu dul dëgg entre deux milliards et trois milliards hmm. yoo xam ne ci secours la bien màkk la euh, ak euh, dimbali néew du doole yi d'accord loolu léegi léegi trente millions yooyu ñu jël buñ ko dee seet buñ ko dee topp ci budget bi foofu lay nekk mais boo ko jaayee da nga koy justifier moom nee na mhm. ci liñ bind ci journaux yi waa ji da ko daan jël liquide mhm. ñëw jox ko ko mu ni moom la loolu lañu liiti journaux kenn weddiwu ko léegi li mu li mu li mu wax ci galgal un adversaire politique non dinaa expliquer galgal donc question rek laa la ci laa mais li may wax nii yan na maanaa papa ngañ may ma eggale bu fekkee galgal la mm-hmm. mais ñun ñu ñuy jaamaar lool ci wàllu politique ñu ngi jaamaarloog ñoom ci dëgg ak ci ngor ba pare am respect ci ñoom man tey mi ngi toog fii maa ngi toog fii nii mais j'ai beaucoup de respect pour lui de par ce qu'on a fait day défendre ay position may defande samay position mais man li ma koy wax li may wax dama koy teg ci li may gis ak li may yëg ak li ma fekkee teguma ko ci parce que Barthélemy la dafa bëgg a def day politique waaw c'est li ñuy def nii c'est normal ñun aussi ñu defande suñu bopp c'est normal loolu mooy jeu politique mhm. mais bu fekkoon ni que galgal la rek am na ñoo xam ni am na grand bi dëkk Guédiawaye xaaral rek na kii Malick mais mi ngi wax lu ko neex dafa am problème ñeneen a ngi fi di wax lu leen neex dañu am problème. te mën nañu am problème waaw léegi bu fan la ñu war a teg ñu ni que ñun dañu singali xalifa parce que dañ ko ragal. mais munatuñ ko def parce que bu fekkoon ni que li tax ay ele gañ ay élection la mais yàlla seede la sénégalais yi seede lañ ñaari élection ñi ngi fiy am boobaak léegi ñoo koy gagné. nan ngeen koy gañee mais nan lañ koy gagné nan ngeen koy gagné. référendum Dakar bi nan ngeen ko gagné. mais référendum bi. waaw moom ak Barthélemy ñoo àndoon. non ban manière ngeen koy gagné Papa Ngagne. waaw référendum bi. ak ban manière ngeen koy gagné référendum bi xaaral ñu egg euh, de mission. non dafa dinaa ci egg si dinaa ci. en 54 pour cent des Dakarois de vote. man naa la expliquer ah de mission yi référendum bi. référendum bi li am mooy moom ak Barthélemy dañoo ànd ak ñeneen ak ñeneen ñu ni non dañuy voté non ñii ni dañuy voté oui ku nekk dem. référendum boobu nag lañu wax moo indi problème bi si Khalifa Sall ak Macky Sall. mais indiwul benn problème parce que Khalifa Wade bureau de vote bi mu voté Grand Yoff dañ ko fa gagné. mais ku gagné sa biir bureau de vote nan lañ lay ragalee. monsieur nañu wax Papa Ngagne nañ delloo si xel yi. d'accord ñu wax wax ji ci dëgg. yéen da ngeen gagné Grand Yoff yéen da ngeen gagné Grand Yoff. référendum bi vous avez bu ngeen mujjee jaar Grand Yoff ay kaba moo tax ngeen génne Grand Yoff xam nga bu beneen wax la. mais du ngeen gagné benn gox boobu mënul nekk. loolu loolu mooy preuve ordre de mission yi ngay wax. waaw da nga ni Dakar gagné ko ndax ay ordre de mission ñun ñëpp ñoo nekkoon Sénégal yëpp seede lañ nga ni yow sa bopp yaa def déclaration bi ci tele yëpp. Mhm. daan ni bu ñu libéré wul xalifa kenn du fi voté loolu nga waxoon. nga ne danga waxoon ni que. Mhm. du fi am bu ñu liberewul xalifa fii Ndakaaru Ndiaye kenn du fi voté. ci ban élection législative yi ñu passé. non ressortez la bande boobu boobu moom amul moom. non non genre yooyu boobu amul. non non non boobu amul je sais que nag da ngeen ma xiif tawaay yëpp. da ngeen ma xiif wante man namu ma leen. namu ma leen tëkku nga j'ai des objectifs et une mission. non non mais si on si on d'accord vas-y vas-y maa ngi jégalu maa ngi jégalu vas-y ñun ñëpp ñu nangu ni que amoon na une volonté manifeste pour que élection du am moom sànq nee na gouverner c'est prévoir. tout à fait les dispositions sécuritaires ont été prises pour que élection yi mën a am fii ci Dakar. boo tax ñu jël ordination yi jox ko ay ay militaires ak i paramilitaires. mais mais militaires yi autant non militaires autant de autant de. voté. waaw dañuy voté ah, bien mais mais du ñu koy am ordre de mission ñu am na ci ñor seen carte mais mais déglu ma. militaires yi dañuy voté et ils sont mobiles. ok ñii ñu ngi ñi ngi yi ñii ñu ngi. camp mais ak benn nombre bu excessif. noonu à ce point mais xaaral xaaral papa. waaw mhm. disposition sécuritaire kenn du toog di wax. nii la ñuy def nombre de personnes bi la ñu utiliser. mais ñun ñëpp xam nañ ni que y une réalité okay. politique d'empêcher des élections à Dakar Okay. les dispositions sécuritaires ñu jël ko comme ni ñu koy jëlee suba ak gannaaw suba. pour que kenn du mën a yàq dëkk bi léegi Barthélémy moom ci man dama bëgg vraiment ñu dellu siwaat ci procès bi demain incha allah Khalifa Sall. Hmm. parce que c'est important dama bëgg ñu ñëw ci la caution liberté provisoire bi. parce que expliqué naa ko moom tontuwuma ci loolu nee na ma maîtriser wu ko bugg ci dugg ak yooyu mais lan la la jox loolu le fait que moom mu war a mën a am liberté provisoire teg con euh, teg caution mu ñàkk ko comme sa noonu boo war a dem procès comme ça nii sans liberté provisoire. mais Papa Ngagne d'abord procès du am y a jamais en fait procès du am te y aura pas de procès. luy loolu parce que ce qu'il y aura on est ñu nekk ñu dans une procédure judiciaire dañu nekk ci complot politique ak cabale politique ah, non dama lay expliquer parce que non damay ñëw euh, dama ne procès du am parce que un procès sérieux dañuy poser sur la table xam nga moom wax na sànq ba wax que fay nañ fi ay militaires dix milliards dix milliards foo ko dégg rek am na marché c'est-à-dire quinze avance mënul c'est-à-dire que quinze avance dama lay dama lay dama lay invité. non Barthélémy mi ma wax ay militaires yu jógee mission la. non on m'a demandé de te laisser parler dina la non on m'a demandé de te laisser parler. dina la déglu yow itam man tamit je souhaiterais aussi avoir le même temps de parole. non dina la déglu voilà dinaa la expliquer dinaa la expliquer lu tax. parce que Khalifa Sall. waaw. bu muy njëkk laaj ñu may ko mu mën a génn code moo ko may sañ-sañ mu laaj ko je suis un témoin de sa man. j'ai été investi étant en prison pourtant Macky Sall ma àndoon ak moom Macky Sall bu muy président du Sénégal laaj naa ñaari yoon demande de liberté provisoire doyen des juges bañ la troisième fois suma avocat yi daal di demande liberté provisoire sur la base de la loi électorale parce que dañu ma investiroon ci benn liste Benno Bokk Yaakaar liste boobu loolu moo tax ma génn parce que le code électoral la loi électorale me donne le droit mm -hmm. en tant qu'investi pas encore définitivement jugé ma mën a campagne Khalifa laaj leen ko ngeen bañ ngeen lank waa maintenant différence bi entre Barthélémy Dias ak Khalifa Sall ban différence moom nous tous les deux des citoyens sénégalais man ma nekkoon dans un dossier de meurtre qui on parle de détournement de deniers publics ñu dem ba ci biir Khalifa Sall falu nekk député l'article 52 du règlement intérieur est clair net et précis ngeen taxaw ne Khalifa amul immunité ñu dem ba ci biir ngeen ne waaw da ngeen da ngeen di da ngeen di yëkkati immunité mais yéen kan ngeen yëpp maa ngi jégalu ci kàddu yi deuxième violation troisième violation caution une caution mais ñun duñ leen jox xobet xobet amuñu ko te pourtant Aïda Ndiongue mi ngi nii joxe woon ma ñëw rek neuf mois après ñëw lu tax non dama ne Khalifa n'était pas d'accord ñun ñii on n'était pas d'accord non s'il vous plaît non s'il a une famille ah oui la famille de Khalifa Sall n'est pas politique les amis de Khalifa Sall ne sont pas politiques su ngeen gisee ñu nga xam ne ñoo yëkkati seen alal teg ko ci kaw taabal bi i n'y a pas un seul responsable politique mais nag Khalifa Sall a une famille et sa famille n'est pas liée a son à son appareil politique ñoom dañ jàpp ni que comme ñoom waa état nee nañu suñu joxee caution ñu bàyyi Khalifa jabaru Khalifa ak ay mbokku Khalifa ak ay xaritu Khalifa indi daje lañu am teg la vérité c'est que vous avez pris Khalifa Sall en otage parce que bëggu leen mu bokk ci élection wante nag wax bi duñ ko guddal am ngeen seen plan du noonu am nañ suñu bos wante nag yéen na ngeen jàpp mais seen plan yëpp ci yéen seen plan yëpp aussi ci ci ci échec lay mujj seen plan yëpp plan bu ngeen mës a yëkkati euh, ci combat Khalifa gis ngeen fan lay mujj amu ci benn bu am succès bu ma euh, gis man Papa Ngagne waaw nee nañu am tout le temps plan ngeen di wax yéen. Euh, Papa Ngagne. waaw ñun du ñu ay gune. ok xam nga objectif bi mooy lan. Mhm. c'est pas Khalifa en prison ou Khalifa hors de prison. parce qu'ils ont pris ici une personne. ils ont réussi à l'exiler te lu mu bëggoon wax kooku il était sur une liste avec vingt six personnes moom kese la ñu poursuivre moom kese la ñu tëj ci kaso <coughs> pourtant bay nañ ko. Mhm. mais dañ ko bàyyi gal ko pour bañ bokk ci élection. l'objectif il faut qu'on se comprenne c'est pas libérer Khalifa Sall. l'objectif c'est Khalifa candidat du am ngeen seen plan am nañ suñu bos mais tamit yàlla am na tamit bosam parce que tey tout ce qui est dans cette cabale cette caisse d'avance ou ces deniers publics sont les premiers responsables le percepteur et le gest et le gestionnaire de la caisse d'avance mooy Mbaye Touré percepteur bu fa nekkoon kenn jàpp ko percepteur bu fi nekk kenn jàpp ko ça veut dire que ñoom su ngeen joxee liberté provisoire est-ce que vous pensez franchement que le percepteur peut donner plus de garanties que le maire de Dakar pour être en liberté provisoire da ngeen bàyyi percepteur dem parce que percepteur deful dara percepteur dafa def lu nga xam ne ni moom la ko yoon santaane à travers des arrêtés et des décrets mhm. visés par l'autorité c'est le représentant de l'État ngeen jàpp Khalifa parce qu'en fait moom ngeen namoon parce que moom ngeen nasoon avec la direction du Parti socialiste mhm. moo tax mën na leen li ci kanam du neex a weddi nag parce que affaire xalifa dañ ciy dégg lu ñu mosul dégg ay recours yoo xam ni dañ naan c'est pas suspensif te ku ne yaa gën a dégg recours foo ko mën a waxee mais ñu aj dossier bi ba réglé ko moom je pense yaa ngi ci recours ak maa ngi ci voilà donc loolu ñu jóge ci loolu caution bi ñëw ñu teg ko ñu gis fi ay caution yu bëri Ndeye Khady Gueye dégg nañ ko fii joxe na fi ay exemple ah. ñu dégg nañ fi Aïda Ndiongue dégg nañ fi bu Ndiaye dégg nañ fi ñeneen ak ñeneen hmm. c'est la première fois ñu dégg caution boo xam ni mayul ki ko joxe liberté provisoire hmm. immunité parlementaire coow li ci am ak Khalifa hmm. kenn su ko dégg étant député loi électorale ñëpp loi électorale jiitu ko mais loolu bu tegaloo tegaloo mais du neex a weddi euh, monsieur le ministre ci ne vraiment singili la ak acharnement jëm ci Khalifa Sall dama xamul nag lu ko war a mën a lu ko war mën a jar loolu. papa ngeen yi ñu ngi ñuy seetaan yaa ngi may déglu Barthélemy mi ngi may déglu. ok am na ñeneen ñu toog. Mhm. papa ngeen. Mhm. nit bu mënee jóg yor mairie ñu tuumaal la weddi ñu egg ci nga ni damay jënd lii. te jënduma loolu. mécanisme la waaw non xaaral rek. grand nag maa ngi jégalu maa ngi jégalu maa ngi jégalu non mais il revient là-dessus. waaw waaw waaw nga ni damay jënd maa ngi koy tontu rek waaw nga ni bi ngay wax damaa muñ toog <laughs> parce que bari na loo wax loo xam ne d'accord ma ci. Mhm. peut-être mënoon naa tëb nga ni damay jënd lii. ñu mhm. dem nga ni jëndu. ñu dem fekk jëndoo ko nga ni fii laa ko teg ñu dem fekk ko fekk ko fa kala ko jaay nee na yëgu ko. voilà d'accord Papa Ngagne yoon ni nañ la jàpp. yoon mais yoon dafa wax nañ la bàyyi aussi. bu fekkente ni yow. da nga bokk ci liste électorale wax naa la déedéet yoon. Papa Ngagne d'accord naa ak yow li nga wax de man d'accord naa ko nee naa ko yaa di faux tegu ko fenn mais yoon ne nañ ko jàpp mais bu yoon ne nañ ko jàpp ba ñu jàpp ko yoon ne nañ ko bàyyi dañ ko war a bàyyi déedéet ok d'accord yoon c'est le mécanisme qui n'est pas conforme mais y a du faux papa ak ñun demee y a du faux non c'est le mécanisme déedéet non c'est pas du faux je vous dis c'est un mécanisme qui a été mis en place à l'époque de Sékou Touré le mécanisme moo faux mais c'est ce que le rapport a demandé à ce qu'on rectifie c'est tout c'est des fonds politiques qu'il rectifie le faux voilà c'est des fonds politiques. d'accord baal ma allez-y Mame Mbaye baal ma rek mënuma d'accord mënuma d'accord ci nday ñuy discuter ndax faux la wala du faux sénégalais yi ñu ngi ñuy déglu. non loolu moom dépassé waaw xaaral rek ma wax leen nan la demee. c'est du faux loolu kay kuy jaay café Touba. Mhm. kuy jaay waaw mhm. xaaral rek may ma ma. c'est du faux waaw mais déglu ma. waaw kuy jaay café Touba. Mhm. koo xam ne nee na njabootam daf ko yóbbu seen dëkk. parce que amul lu mu lu mu leen sàmmee ñu ni kooku moo leen di jaay quatorze millions neuf cent. ceeb ak 14 millions 900 dugub. moom nee na yëpp ci GIE lu tax 1996 ba tey état arrêté wu ba tey état arrêté wu ko. boo defee nii du maa ngi jégalu maa ngi jégalu non non mënoo dëkk ci jégalu aussi la dernière fois maa ngi jégalu la dernière fois. voilà léegi laajatuma sax Barthélemy tontu sénégalais laay wax. waaw ma ni kuy def loolu. Mhm. loolu jub na wala jubul. jubul ñëpp ñu d'accord ni ci jubul. waaw nee naa la yoon. waaw moo ni. du président Macky Sall moo ko fi indi. détournement la nañ ko jàpp. détournement de deniers publics ñaari voies nga mën a génne. d'accord. xam nga nee na moom bénéficier na xaw ma euh, euh, bénéficier na euh, lan moo ko utale ak Khalifa Sall. mais liñ leen jiiñooñ bokkul. Mhm. Barthélemy bokkul. la loi électorale est claire. non non loi électorale. règlement intérieur est clair. non da lan moo leen njëkk a utale. Ah. moom détournement de détournement de ak meurtre lañ leen boole. yow kenn du la laaj caution. Mhm. yow kenn laaju la woon caution. ci kóolute la ñuy xool le juge bi di xool ndax juge bi def na liggéeyam wala deful liggéeyam. non loi électorale la ko génne moom. non xaaral loi électorale waxul dañu public waxul même dafa ne loi électorale xaaral ma ma tontu boo ma dégloo di nga comprendre mhm. xam nga da nga laaj sénégalais yi lan moo ma utale ak xalifa lu tax mënuma bénéficier wu ma ni la li leen njëkk a utale mooy charge yi ñu leen toog bokkul article yi tënk bokkul kii luubal xaalis lañ ko kii yow faat nit lañ la jiiñ mhm. tribunal am na ñu doon wax dañ laa war a tëj ñii di wax waruñu laa tëj pourtant tribunal atte na. mais loi électorale génn na xaaral xaaral ma. loi électorale boobu xalifa bi ñu koy investir mi ngi ci kaso bi. waaw moom li mu wax. Mhm. mais charge yi ñu leen tegoon bokkul. non non attends Mame Mbaye nag Mame Mbaye nag aussi nag yow yaa ngi bëgg a. non na charge yi mais kii faat nit lañ ko ji. waaw détournement de deniers na nekk meurtre. nekk détournement. Mhm. loi électorale li mu ci wax lu clair la. mu des ci kaso bi. loi électorale immunité ñëw mu des ci kaso bi. caution ñëw mu des ci kaso bi. déedéet déedéet acharnement la déedéet déedéet c'est la justice. waaw justice. ñoom xam nga dañ naan euh, euh, bu fekkee boo nekkee député. Mhm. assemblée mooy demander nga génn. Mhm. assemblée. demandé nañ ko aussi. non non il a des députés yu ko demandé. mu génn bàyyi li ngay wax. si mais assemblée buy demandé du ay député ñooy dem ci rajo bi di demandé. ah d'accord assemblée buy demandé Barthélémy xam na li may wax. ok lettre ba fay génn di demandé beneen institution keneen ku dul président Moustapha Niass mënu koo signé say avocat mënoo leen dem dajale ak li ma ñàkk xamadi droit yëpp. xam naa ni assemblée bu dee wax président Moustapha Niass mooy bind. demande de justice warul woon egg assemblée xaar xaar ñu. ci loi muy balaa muy nekk député. waaw mi ngi mi ngi mi ngi ak ay droit am civique ak politique. Papa Ngagne ma bàyyiwul ma waaw du doo doo. li may wax. ok ñi ñuy déglu duñ xam li may wax. Mhm. dama ni la. Mhm. assemblée moom mënoon a demandé ñu bàyyi xalifa. Mhm. ci yoon constitution. institution bi mooy demande beneen institution ni leen kii demande boobu musul am neel benn mhm. beneen bi beneen bi ci topp mhm. ay avocat am ñoo bind juge bi mhm. d'instruction bi moo refusé sànq maa ngi koy dégg mu naan Macky moo def li Macky Sall rapport bi deful dara lu dul transmettre ko ca yoona ko ko may d'accord donc bu ñu indi confusion rapport yi ñu ngi xaar ci yeneen rapport yi aussi ah, mais ah. rapport boobu am na ñeneen ñu ngi tuumaloon ñoo xam ne dañoo dem fayi d'accord mais bokkul dafa wax rapport Petrotim ñu ngi boobu moom ne na rapport ko génne wan la ko d'accord c'est xam nga toog ci télé di wax man tey bu mënoon naa génn léegi ni euh, TFM am na benn rapport gis naa fa benn bi ma fa jàllee gis naa fa benn rapport boo xam ne nee na papa nga jël na li mhm. d'accord wax boo ko indee da ngay indi firnde. effectivement ñu bañ a teg ci ay wax. xalaat naa ak dégg naa. d'accord na d'accord na à ce niveau de responsabilité. wax yi réew mi la ñuy wax alors. non mais ma eggalee da nga ko bàyyi mu eggalee. Ah, mais eggale na de si. non mais eggale nga de non mais eggale nga de eggale nga quoi. non non bu ko jugee noonu. mais waxal léegi non non. Barthélémy non non mais dama lay jox non yow laay jox euh, s'il vous plaît dama ni dama bañ ñu tardé aussi ci ci ci le faux par exemple affaire u GIE tabaar boobu ak jaaykatu café bi ak mécanisme bi bu ñu tàrreel nit ñi ci du dara lu dul du faux nañu nañu dépassé loolu. ce n'est pas du faux non loolu mënu ko weddi. non je reviens c'est pas du faux non s'il vous plaît. non monsieur le maire Barthélémy non bu ñu tardé ci loolu gis nga loolu bu ñu ci tardé. mécanisme boobu. ñu wax dañ ko revoir mécanisme boobu bu ñu waxee dañ ko revoir il a plus de vingt cinq ans. mais après c'est du faux. mais j'arrive j'arrive c'est du faux. non l'État l'État. waaw si quelqu'un était responsable c'est l'État. parce que l'État pendant vingt cinq ans non ma ñëw s'il vous plaît s'il vous plaît pendant vingt cinq ans Papa Ngagne tout de même

on est d'accord d'accord mais Pape kon à partir de ce moment pourquoi les les les les percepteurs sont en liberté provisoire. pour les mêmes chefs d'inculpation. non loolu jaaxal parce que xalifa loolu moom loolu moom loolu ñëpp la jaaxal. xalifa nee na Mambey xalifa nee na Mbaye Touré nangu na ko mu sommes tous des croyants sur ce plateau musulmans comme catholiques nous sommes tous des croyants. Mm-hmm. Mm-hmm. nañu seet ci yàlla te bàyyi caaxaan bi. Mm-hmm. sommes tout le monde. xalifa et son équipe. y compris les percepteurs. sont un groupe est libéré un autre groupe est maintenu en prison. Mhm. mais yéen kan ngeen yépp mais parce que Khalifa moo nangu nii. devant ci juge. non même parce que la ko jox parce que même bu moom moo nangu ni moom lañ ko jox. même bu nangoo ci ah, association de malfaiteurs. association de malfaiteurs dafa bàyyiwul kenn non association de malfaiteurs bàyyiwul kenn. même bu xalifa nangoo. papa Ngagne na ñun ñett ñi ñun bu ñu jàppoon. waaw xaaral rek. waaw ñett ñi bu ñu jàppoon ak la ñun ñett ñi ñu tuumaal ñu ñu ni. association de malfaiteurs déglul. waaw am nañ ay portable yu fi réer. waaw yow nga ni li Mame Mbaye jël ak li li Barthélémy jël yow lañ ko jox waaw waaw wax dëgg yàlla yow mi nangu ni ko yaa ko jël a téye man la ñuy gëm te ah, ci atte déedéet mais yow sa bopp yaa ko wax yow mais su ma nee jëluñu ko nag mais xam nga balaa balaa ngay balaa ngay ñi xel di nangu ñu lay miimle yow sa bopp nga ni du man waaw mais moom musul wax ni du les percepteurs n'ont rien à se reprocher parce qu'ils n'ont rien fait ils ont été couverts par des documents qui ont été crédibilisés par le représentant de l'État mooy le préfet tey y a qu'un seul fautif ci dossier bi ville de Dakar mooy l'état du du Sénégal. via son préfet hein? non l'état du Sénégal le mécanisme qu'ils en place en 96. Mm -hmm. effectivement ça ne colle pas avec une seulement pour liquider un adversaire politique. mais Barthélémy ba ko dëkkaloo fu mu dëkk non non franchement Mambay Mambay. Mambay Mambay Mambay. Mambay ki ni jënd naa lii ci jëndul loolu. Mambay Mambay s'il vous plaît Mambay ça date de 96 en 96 non dépassé wuñ ko ñu ngi ci procédure loolu non procédure bi la ñuy wax fi objectif non génn nañ ci affaire boobu loolu moom affaire affaire ceeb beeg dugub ji mm. loolu buñ ci werante loolu moom xalifa sax ku koy ciy bëgg a far da nga ko bëgg a far parce que dafa nekk sa nit mais buñ waxantee dëgg lii laay jënd te jënduloo ko loolu loolu mais est-ce que xam nga dara waaw les sept premiers mois yu Khalifa Sall nekkoon à la ville de Dakar. waaw il a refusé de prendre les fonds politiques. waroon na continuer loolu. ma ñëw s'il vous plaît non mais s'il vous plaît. waaw ah oui s'il vous plaît. parce que nag ces fonds là c'est utilisé pour une un objectif bien précis. xalifa ñu ngi taxaw ci buntu mairie bi di di ko wax ñun jamono Mamadou Diop. waaw Pape Diop ba tey fii la ñuy ñëw pour jël xaalis pour faju wala pour lii ak lii ak lii. mais am na ci budget s'il vous plaît am na ci budget dama ne. am na ci budget am na ci budget loolu am na ci budget mën na ko bañ a jëlee foofu bon maintenant s'il vous plaît dama lay laaj yow dama lay laaj. ok fonds politique président de la République da ci dimbali ay am déet. ministère de la santé. am na ministère de la santé. s'il vous plaît. c'est fonds politique euh, s'il vous plaît bu président non s'il vous plaît dama ne hmm. président de la République. Hmm. lu muy soxla fonds politique hmm. en premier lieu pour par exemple. aider des Sénégalais. Mmh. wala jàppale des fois ay gàmmu ay magal et mmh. y a le ministère de la solidarité nationale le ministère de la famille le ministère de la santé. Mmh. ça ne veut pas dire que le chef de l'État n'a pas de fonds politique. le ministre de l'Intérieur Barthélémy mairie Dakar ngay comparer maire mairie Dakar ngay comparer ak présidence de la République. foofu ngeen amee c'est-à-dire non non non s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît dama ne dama ne Mame Mbaye Niang Mame Mbaye Niang le président il est élu le maire de Dakar est élu. s'il vous plaît le premier ministre a des fonds politiques il n'est pas élu il est nommé le ministre de l'intérieur a des fonds politiques il n'est pas élu il est nommé vous pensez que le ministre de l'intérieur il, achète du renseignement avec quoi c'est prévu eh par la loi au niveau de la ville de Dakar. C'était instauré comme tel. Mais la loi, elle est où? Maintenant, la s'il vous plaît avec votre permission. ci rapport avec tout le respect que j'ai pour quand il a commencé à parler di wax ci waxu le lait à l'école mais dañ ko wax ne ni que ay doomam ñu roowuñu ay nit ñu soxla lait à l'école mu bàyyi wax jooju. parce que non s'il vous plaît. parce que ci biir non s'il vous plaît sur le rapport. non s'il vous plaît. bu ma sañoon li ñuy wax. dama ne mën nañ ciy wax yu génne ci njabootu nit ñi dama ne mais ñuy wax dafa am njaboot léegi xalifa dafa am njaboot di nga ko benn yoon di nga ko tontu di nga ko tontu di nga ko tontu on s'écoute dama ne dama ne je reviens à ce que j'ai dit mm-hmm. si vous êtes en mesure de prouver aux Sénégalais que lii du complot politique du cabale politique mm-hmm. na ngeen respecter au moins les droits de Khalifa Sall droit yu ko loi électorale may ngeen violé ko droit bu ko règlement intérieur Assemblée nationale may ngeen violé ko droit bu nga xam ne ni code pénal may na ko en terme de caution ngeen mais mais ngeen bañal ko ko. mais c'est quoi le problème alors léegi léegi monsieur le ministre man man damay damay damay damay damay ñëw ci foofu parce que loolu aussi moo jaaxal ñëpp. Mhm. c'est-à-dire de acharnement bi dafa flagrant ci lépp et bu ñëwee aussi et dafa dafa xaw a doy waar par exemple seen air seen seen seen seen dafa coïncider ak ñu ne bëreet Karim Wade def ko ci kaso bi ci at bu njëkk bi. Mhm. at bu mujj bi ci mandat bi Khalifa Sall. Mhm. ñu ne kële exilé nañ ko. potentiel candidat la xam nga nag loolu aussi dafay xaw a tey xel. mais man ak moom mii ak surtout ak procédure yi. man ak moom mii waaw man ak Barthélémy ah ànd nañ. di boole li xalif li li li li Karim doon def ci réew mi. man ak yow. te ah. muy dëgg. Mhm. wax de tey man ak yow ñu ñaar ñëpp xoolal dañu baakaar xam nga tax. Ah. munoo jël Karim Wade. Mhm. teg ko ci liste vingt six personnes. Ah. moom kese ngeen topp moom kese ngeen tëj kaso. moom kese ngeen xoolal ngeen gal gal génn ko ci. d'accord acharnement la waaw dinañ ci acharnement man ak moom. <laughs> waaw ànd nañ. di dox guddi di nas di dox bëccëg di nas guddi pour boole ni lii Karim Wade di def ci réew mi d'accord ci ni mu. déglu boobu aussi xalifa ngi ànd ak yéen. ñu ñëpp ñu ngi ànd voilà xalifa aussi ak yéen. bu ñu teg wax ji. ok c'est-à-dire xam nga xam nga acharnement ci kan lay am yow mii ñu fekk la fii nga toog. Mhm. ñu la kirtim yóbbu tëj ci kaso bi amuñu luñ la tuumaal amuñu dara luñ la amal mhm. encore une fois. Mhm. rapport bi IGE bi mu wax. mais acharnement aussi bokk na ci sa droit yëpp. ñu fëgal ko candidat président li nga waxoon dafa ko non non bilaay dimbali ma attends léegi rapport IGE bi mu wax. Mhm. rapport IGE bi ay fait. waaw ak ay recommandations. ok président day transmettre. Mhm. procureur procureur xool ku ci nekk lan la yoon wax pour ñu mhm. topp la. loolu moo fa yóbbu xalifa nee naa la ndax mu génn wala du génn yoon definir na nan la war a génne. Papa Ngagne mais ban yoon aussi. Papa Ngagne mais ban yoon la. Papa Ngagne mais Mambay ban yoon la. Papa Ngagne mais yoon yoon yoon bi ko xañ ay droit de visite la est-ce que. Papa Ngagne yoon mais est-ce que boobu yoon la. mais defal ndànk. est-ce que yoon bi ko xañ loi électorale la pour mu génn campagne la. Papa Ngagne droit de visite mais est-ce que yoon bi ko xañ immunité parlementaire la. est-ce que yoon bi ko xañ ko ban yoon la ban yoon nga may wax. fan lañ ko xañee immunité parlementaire. mais attends Khalifa amul immunité parlementaire wax nañ ko bi mu nekkee. bi loolu kay wax nañ ko. Papa Ngagne bul wax loolu mais attends yow <laughs> recours yëpp wax ko nga ne non non niveau de ah, Papa Ngagne à ce niveau non à ce niveau de responsabilité waroo wax loolu dégg procureur ni amul immunité parlementaire yaa wax loolu man maa wax de responsabilité mosoo ko dégg yow man maa ko wax procureur musu ko ko ko jiiñee suba mu ne la andil preuve bi ko wax. man kay musal ci procureur. waaw waaw dama lay wax après di nga wax. loolu mooy bu njëkk. musoo dégg procureur ni Khalifa amul immunité parlementaire ñaar xalifa bi biñ ko falee député. ba bi ñuy lever immunité parlementaire am. Barthélémy xam nga ni non procureur ko wax non procureur non si si si mais mais Papa Ngagne bu ko wax. d'accord nañ dem bu ko wax man maa ni la procureur musu ko wax amul problème wax ni ko procureur mos na wax da indi firnde bi. d'accord Khalifa biñ ko nommé député bi mu bi élection yi jàllee mu nekk député ba bi ñuy lever immunité parlementaire am amul benn acte judiciaire buñ teg ci kawam. xam nga bu baax li ma lay wax est-ce que mën naa la poser question. xaaral ma eggale. xaaral xaaral après di nga ñëw. loolu mooy benn beneen bi. bu ñu nax nit ñi fonds politique amul ci mairie. am na ci mairie. fonds politique existé wul ci mairie. wala bu dee existé présidence la existé moom mii voté na léegi fan la ñu teg. mairie Dakar naan fonds politique fonds politique maire Guédiawaye ni kon am na fonds politique ndimbal gi maire di joxe dañ ko bind ci budget nee naa la mairie dakaar ña fay ñëw di ñaan xar c'est normal ay sénégalais dañ koy yaakaar kilifa la dañ koo fal waaye dem ba ci méngale mairie dakaar ak président de la République defe naa loolu. doy na firnde ni moom dafa mel ni yàlla ak yàlla wax dëgg yàlla bokkul bokkul li ñuy wax ci ay ci ay yaama neex ak farandool mais bu ñu waxee dëgg. waaw te yàlla tax. Mhm. ak askanu Sénégal. Mhm. li ñuy def ñu teg ko ci seen njëriñ rek réew mi. dafa laaj jubbanti. ci ñëpp président ci ñuy ñëw. mais nañ ko def ci ñëpp je vais combattre les ces pratiques là. Khalifa encore une fois miimul. waaw Barthélemy li ñu jiiñ Khalifa. mais pratique yooyu dañ ko yemale ci Khalifa Karim Wade non non dama ne ndax dañ jubbanti boobu est-ce que xam nga ni est-ce que xam nga ni suba am na yeneen ñeenti sénégalais yu am procès ñii pour vol ñii pour détournement parce que Khalifa dafa am ñu ko waxal ñi amul ku leen waxal nag dafa nekk maire de Dakar waaw déedéet dafa nekk maire de Dakar bokkul ak ñeneen ñi ngay wax ñooñu mais am na ay Khalifa bokkul ak ñooñu rapport bi jàpp ay yeneen maire yoo xam ne ay problème carburant la ñu ñi nga bëgg a yemale ak Khalifa laa lay wax ay yeneen sénégalais yu ñu jàpp pour vol ak yooyu na rien à voir Khalifa non moo tax man la yoon waaw dafa war a yoon mooy may sénégalais yëpp ok ñu tolloo ñëpp bénéficier wu ci même privilège c'est pas parce que kii dafa am ku ko waxal wala Pape Mambay ministre la wala wala Barthélemy député la yoon dafa ñëw pour tegu ci kaw ñëpp. loolu mooy dëgg. loolu la ñuy xaar ci président munoo def lu ah, lu ñu xaarul ci président mu jël ay dossier teg ci concom. mais bi mu na ko man xam nga man amu problème. wax <laughs> non non non. <laughs> bah di bluff. Ah, président quand il xam ne posé xaw ma comment est-ce waxal dafa am rapport bu ma teg sama conc rapportu Fesman bi la doon wax parce que ni mu ko expliqué mais mais sénégalais dégg nañ ko nee na su suñu suñu suñu suñu kersa ak suñu suñu culture ak suñu aada mayuma jàpp mayuma woon ma jàpp ni que mooy ñu ngi may déglu mais mais papa mais yow boo amul kersa boobu moom am na kersa boobu waaw d'accord amul problème mais kersa boobu nga dugal ci suñu du rapport mambay du rapport keneen keneen ku fi wax dara nit ki boo ko jiiñee dara da indi preuve nañu bàyyi légèreté yi toog ci tele wax lu la neex naan dégg naa wax naa kii naa nañu romb foofu li ñuy wax sénégalais yi ñoo tax ci jubbanti lañ nekk voilà kenn topp ko parce que dafa bëgg a nekk président ñi fi bëgg a nekk président bari nañ kenn topp ko parce que dafa mën a gagné ñi mën a gagné bari na lenn la ñu gëm nguur yàlla moo koy joxe loolu mooy homme de foi yi nga wax ngay chrétien may jullit moom muy jullit nguur yàlla moo koy jox beneen bi démocratique yi démocratique yi nekk sénégalais yi la ñuy dem seet ku ci nekk jël. ñun bu waxtu bi jotee même ma eggale papa euh, bu waxtu wi jotee. ñu jël suñu programme ak suñu bilan dem seeti sénégalais yéen. bu ngeen amee candidat ngeen dem seeti sénégalais yi sénégalais yi départage loolu mooy njëriñu réew mais monsieur le ministre man xam nga ban kersa laa am dama am mhm. man dama nekk un gentleman mhm. man bu ñuy dem ci ci élection mhm. la bàyyi nga nekk kaso may wax suma ay nit tëj naa ko ci kaso bi na ngeen ko gagné à Dakar mais loolu fan loolu fan la ko waxee attends donc c'est bon léegi léegi léegi léegi may ma ñu avancer defal ndànk defal ndànk defal ndànk Barthélemy waaw nekk c'est-à-dire benn nit ñoom bu xëyee laboratoire la ñu yor xam nga nee na am nañ seen plan mais bu ñu xëyee et puis c'est normal ils sont dans leur rôle. Mm-hmm. loolu moi man nangul naa leen ko. dañuy xëccoo ak ñun ñun ñoo am intérêt. wax li ñuy def mais ñoom tamit dañuy toog. mais fan nga dégg président wax loolu. mais musul am. c'est bon y a pas de souci que seen plan bi ngay wax plan B bokk xam ne Khalifa day tëj du ci kaso bi su fekkee da ngeen bëgg candidat ngeen ut seen beneen parce que jàpp jàpp nañ ko duñ ko tëj tëj nañ ko duñ ko atte ñu ngi koy que plan boobu am ngeen plan B boo xam ne keneen la ku dul Khalifa. plan B bi yàlla moo ko yor non attends politique non ma ñëw rek dama ne kenn weddiwul yàlla ma wax ma ndax xam ngeen B waaw suñu plan A ba X ba X Y Z il s'appelle Khalifa Sall. ok parce que ñoom lu ñu ma def. comme le PDS. Karim Wade dama ne damay ñëw rek. Macky Sall a ngi noonu seen kanam ñu leen di xaar dama ne yéen ñëpp Macky mi ngi jàkkaarloog yéen. dinaa la wax ñaari baat. waaw Papa Ngagne. <laughs> Mhm. Papa Ngagne ñun dañuy politique. waaw te ñun du ñu ay ragal. ok wante dans en politique. en tout s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît je crois que ceux qui ont fait face à Abdoulaye Wade sont toujours là ki xam lu ma wax Abdoulaye Wade avait un appareil politique Abdoulaye Wade du Macky Sall dama ne Macky Sall n'a pas d'appareil politique mais s'il vous plaît s'il vous plaît il faut qu'on se comprenne oui bien sûr on dans un pays on nga xam chaque jour ngeen di wootee jàmm di wax waxu l'objectif c'est pas Khalifa en liberté ou Khalifa en prison l'objectif c'est que ñii lu ñu def élection législative ba tànn sénégalais yuy voté ak sénégalais yuy voté mu neex ci ñoom ñu ne bi yoon dañ koy biisaat pour tànn ñuy nekk candidat ak ñu dul nekk candidat loolu bañ a am moi je l'ai dit je le répète je ne suis pas avec le PDS je soutiens pas le PDS mais am na benn xeex bu ngeen xam ne ni ñun nag PDS a ko bokk c'est que képp kuy sénégalais te nga nar a mën a doon candidat nga doon candidat te bu ci tegu tamit génne leen carte ngeen joxe carte yi. d'accord je vous dis vous êtes en train de vous exposer vous exposez votre pouvoir vous exposez vos familles et vous exposez tout le pays. Mhm. Mame Mbaye on se connaît j'ai beaucoup de respect mais xam nga que ñun du ñu ragal. te lu ma la wax. du tey yow da ngay yaakaar ne ñun ay ragal lañ ma mbay ma mbay ma mbay. yow xam nga ni ñun ragaluñu. ma mbay ma mbay. parce que affaire bi du dëkk woon te ay ragal la ragal ma mbay affaire bi réew mi Sénégal doone Sénégal ba tey. waaw président jëm na sàcc élection jëm na n'importe mais musuñu gis président taxaw ci dëkk ne ñii dañuy wote ñii duñu wote ñii dañuy doon candidat ñii duñu doon candidat loolu kenn du ci ànd te loolu mbiru caaxaan la maintenant je pense que tey ñëpp dinañ mën a seede aussi bien au niveau national qu'international que mhm. tous ces dossiers la ne sont pas des dossiers judiciaires c'est des dossiers politiques tey Karim Wade yow tu es du tu es au pouvoir dama lay poser benn simple question mhm. wax ma lan la Karim jël fu mu ko jëlee ak fan la ko teg je suis incapable de me le dire. parce que aucun Sénégalais non s'il vous plaît rek bëggee ma tontu la ci de. non s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît mm-hmm. on était tous pour une reddition des comptes. Mm-hmm. tey. Mm-hmm. tout ce qu'on peut noter c'est que condamné nañu Khalifa euh, euh, Karim Wade. kenn mënuñu wax lan la Karim jël ci ak fu mu ko jëlee ak fan la ko dëgal kenn kenn waxuñu ko. si vous plaît rek. man nee naa la mën naa la wax maa ngi assemblée nationale s'il vous plaît. Mimi bu muy ñëw assemblée nationale. ba a xaw ma 7 milliards xaw ma 8 milliards il n'y a jamais eu de loi rectificative des finances. waaw léegi man mën naa la wax xaalis boobu xamuñu xamuñu fu mu dugg. non man mën naa la wax ma ñëw ci s'il vous rek ma s'il vous plaît rek ma ñëw bi ñu Khalifa Sall pour quelques secondes s'il vous plaît. pour quelques secondes pour quelques secondes waaw. je reviens à ce que j'ai mhm. vous ne pouvez pas expliquer. ci benn groupe. Mhm. di topp pour les mêmes chefs d'inculpation. Mhm. ñii ñu tëj leen ñee ñu bàyyi leen. d'accord c'est bon un règlement de compte. voilà Mame li may li may wax. ci l'affaire Karim Wade na la ci. ci defe naa defe naa sa deuxième sujet bi ci loolu lay wax ci waxi mm-hmm. aéroport bi ah, waxi aéroport bi rek preuve la déjà ci Karim malheureusement amuñu temps pour vider ko c'est c'est dommage malheureusement mais xam nga danga ni kenn mënul topp Karim wàdd mënuñu la wax fii xaalis la jële fii xaalis la jële mm-hmm. Karim wàdd moo jël suñu aéroport mm-hmm. léegi ñoom ñëpp tey ci mën nañ ci ba loolu mooy li ñu ko doon jiiñ li ñu jël ci moom lañu wax waxuma jiiñ non man lu mu def laa la wax. waaw waxuma la jiiñ de. mais non waxuma loolu est-ce que récupéré nañ ko ci moom la wax. mais mais récupéré nañ ko tey loolu moo tax mu am beneen société d'exploitation bu tudd Soumalima AIBD bokk ci euh, Turquie ko eggale bokk ci Sénégal am ci ay action ba pare moomaat aéroport am traque bi waaw non li ma lay wax nii traque bee tax mu mën a nekk tey jii nii bu ñu jotee. ci ay mhm. AIBD c'est parce que poursuite yi la. Mhm. parce que biñ fi ñëw fekk nañ ñu signé ak d'accord mooy nga jël suñuy taxe tabax aéroport ba mu mat sëkk woo Papa Ngañ demuñu luñ fenn xamul fan xaalis bi jóge nga jox ko ni ko Papa Ngañ exploité 30 yaa moom xaalis bi amul benn redevance loolu lañ fi fekk. d'apport la tuddoon. tey AIBD moom moom aéroport bi. AIBD Sénégal moo ko moom. société d'exploitation bi exploite aéroport bi. non leer na loolu mais parce que autoroute à péage. Uh-huh. foofu la ñu doon commencé wax ji te waxuñu fa wax ji. non 434 milliards. cinquante milliards vous leur concédez l'autoroute à péage pendant 30 ans à 100% ils n'ont jamais remis ça en cause. non mais parce que Barthélémy dañoo bëgg parce que dañoo bëgg a tardel tu sais très bien de quoi je parle. mais je sais autoroute à péage mais yow li ngay wax nii mais li ngay wax nii daf la arrangé parce que yow yaay opposant non non xaaral damay leeral rek commencé autoroute à péage. ça t'arrange parce que autoroute à péage ma lay yóbbu aéroport. yow xam nga lu tax wax ci waxu autoroute à péage. xam nga lu tax yow s'il vous plaît rek. non ça t'arrange nga wax loolu. non non non non ça m'arrange pas ça m'arrange pas. deux minutes benn Sénégalais. may ñu quatre minutes may ñu quatre minutes Sénégalais baal mu terminer baal mu baal ma mbay terminer xam nga lu tax mu arrangé waaw parce que Barthélemy dafa bëgg ñu tardé c'est-à-dire ñu dugg ci phase contention euh, contentieux dem ak Eiffage tribunal de Paris liggéey yi arrêté autoroute bi exploité bëggul ñu pare d'accord yow yaa ma gën a xam ni que loolu Karim Wade ak Karim Wade ak Abdoulaye Wade ak président Wade ci seen jamono lañ ko signé man ak yow xeex nañ pour loolu yow xam nga ni que loolu ça a été blindé boo ko laalee dem tribunal de Paris comme li ñu dal ci Mittal donc yow xam nga ni da nga ñoo bëgg a tardeel moo tax c'est normal ce rôle la bëggoo ñu réussir parce que da bëgg a toog fi ñu euh, mais li ñuy wax ci tënk xalifa li mu def mu ngi nii waaw sénégalais ay seede lañ ci tribunal am na léegi xalifa Sall dans la continuité de l'état man waxuma dafa def waxuma dafa def te yow xam nga xalifa Sall deful dara li ñu ko tuumaal yoon dama ne yoon dama ne may na suba sànq tu as parlé de choses tribunal am na budget pour mën a dimbali ay sénégalais. waaw dama ne y' a tellement de responsables nga xam ne ak mm. ñoo xamoon caisse d' avance ak miin ko. ndax doon ñëw ci Khalifa Sall pour mën leen dimbali. Barthélemy comptable comptable comptable TFM bi bu jëlee xaalis bi génn may gardien bi may caméraman bi lu ci yoonu gardien bi ak caméraman bi bi bu jëlee ngeen nama def bu jëlee xaalis bi ñëw may la ci 15000 may gardien bi vingt mille mais bu ñuy jàpp lu tax ñu lay jàpp ca yow comptable ba jël may la léegi merci na leen waxante dëgg euh, ku nekk une minute rek pour ko defee ñu tàggoo si malheureusement temps bi dab nañu amoon na sujet yu bëri yu ñu waroon évacuer mais malheureusement mu yem ci l'affaire Khalifa peut-être dinañ am beneen occasion euh, mën ci revenir largement mm-hmm. euh, s'il vous plaît Barthélémy lan nga def sa tàggatoo s'il maa ngi lay remercier franchement avec toute l'équipe de la TFM tamit suma doomu ndey ma meña c'est vrai mais ma koy ñaax daal nañu bàyyi xel ci ëllëg mm-hmm. ëllëg lu jaru sóoraale la parce que Sénégal xamuñu luy règlement de compte. Mhm. et je vous le dis amicalement de toi à moi. Mhm. vous êtes allé trop loin. Mhm. vous êtes allé même trop trop trop loin. si vous pouvez parler ak le président teg leen balateer ngeen bàyyi Sénégalais yi tànn moo gën parce que lii baaxul ci réew mi lii baaxul. voilà di leen di gërëm nag di leen di sant. merci beaucoup monsieur le ministre Mambaye. bon merci beaucoup di remercier mon mon ami Barthélémy di remercier tamit peut-être di jéggalu bu fekkee ne que wax ji xawoon na jóg bon. l'objectif recherché malheureusement ma, mais c'était leeral ma ba c'est toujours comme ça malheureusement j'avais vraiment des questions yi nga xam ni suma gémmiñ mais man mi malheureusement mais yàlla def na malheureusement c'est dommage mais mais di wax di wax ni que sénégalais yëpp a yem waaw kenn gënul kenn mhm. kenn ëppalewul kenn mhm. lii muy wax ni ñun dañ ñu ci tàggat bis bu nekk d'accord nguur juróom-ñaari at ci ginnaaw dañ daan toog leneen lañ daan defi d'accord xalaatuñu woon ni que man dinaa nekk ministre tey jii musuñoo xalaat muy moom muy man ni que dina toog fii di wax man ma toog fii di wax d'accord donc dañoo gëm ni que àddina day évoluer xalifa mhm. waxuma moo def dañ koy jiiñ mhm. yoon may na ko suba tribunal ñëw toog mu organiser défense mu wax li mu def attekat bi atte yow mii biñ lay atte ñu ci bari ci sénégalais yi. dañoo defoon ni que dinañ ko tëj vingt ans trente ans quarante ans. moom ngeen amoon moom ngeen amoon non tey tey tey justice bi. jox na la kii. voilà maa koy ñaanal. man en tant que citoyen et mm-hmm. musulman et peut ami. d'accord mu génn ci jafe-jafe. voilà mais président Macky ak ñun ñi téye nguur gi dañoo am responsabilité pour samp fi voilà merci doxal mbokk yi mu nekkoon seen émission faram fàcce mm-hmm. ñuy gërëm bu baax ñi nga xam ne ñoom ñooñu jàppale ci émission bi la régie euh, ci li nga xam ne noonu lañ ci jàppee bu baax Vieux Diouf euh, ñoom Doudou Sow euh, di leen jox daje incha allah ba bële di ñëw bu ci yàlla àndee jërë ngeen jëf.